mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ak dalal ci seen chaîne YouTube bi ngeen safoo Public SN TV di dikkaat ak yéen ci actualité yi xew ci réew mi ak Guy Marius bi ñu ràññee ci xeexu ancien régime bi ca côté Ousmane Sonko moom moomee suñu naataangoo yu nekk Jeune Afrique dégg seen micro wax na ni gisagul changement de système bi Ousmane Sonko doon wax ak bàkku ci at yu ñu génn suñu sukkandikoo ci lu mu wax gis na ni régime bi ñu doon xeex moo ngi fiy des ba léegi mu dikkaat ci waay taskatu xibaar yu ñuy tëj mu nekk jëfin bu mu ñaawlu torop ndaxte yooyee doxalin bokkoon na ci lu président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko gënoon nakarlu ci nguuru Macky Sall bokk na tamit ci lu mu ñaawlu taxawaay liggéeyu assemblée nationale bi te bu ñu seetee ba ci biir sujet yu fa war a traité bëri na su loolu weesoo moom mii di Guy Marius Sagna rafetlu na liggéey bi président Bassirou Diomaye Faye amal ci justice sénégalaise bi ak assise yu muy taxawal di leen jaajëfal te di leen dox dig daje ci suñu yeneen programme